soir d'info ñu am mbégte ànd ceek yéen lundi 20 janvier 2020 altine ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2020 bi ñu namoon ci ànd ak Fadel Baro bokk ci collectif euh, ñoo lank waaye ci diggante bi ndey mbill gi ñi ñu téye woon féexal nañ leen kenn ci ñoom teew na fi caat ni ngi lay nuyu maa kon sababu waxtaan wi xam ngeen ko Pape Djibril Fall lañ ciy feggool Pape Djibril Fall maa ngi lay nuyu Abdoulaye maa naka waa caajaay bi nga jógee waa caajaay ña nga naka cere yomb gi ak ak mbuum beeg yëpp <laughs> borom cere ji nuyu na la foog ñu ànd fa <laughs> incha allah alors euh, waxtaan wi niñ leen ko waxee euh, ñoo lànk samedi ba sànq hmm. yéen ngi ñu yéen a ngi woon commissariat Euh, très rapidement nga dellu si ci lu sabab seen euh, téye bi su ma juumul wetu gël tàppe lañ leen tegee loxo li waaw lu ngeen doon def. li sabab téye bi kay mooy xanaa nguur def li ko neex. Hmm. waaye ñun ca lañ nekkoon. Hmm. gisuñu lu tax ñu war ci mun a téye doomu aadama. Hmm. ci mim réew. lan ngeen doon def. dañu toog ñu gis ne que sénégalais yi ñu ci bëri. laaj na ñu dem def waxtaan. ci ñoom fekki leen fa ñu nekk. jébbal leen. lu toll lu tudd affiche muy flyers xamal leen. tous les vendredis ndax sénégalais yi joxuñu leen ay car rapide seen paasu bopp lañuy ñuy ñëwee te dafay jafe bu dajee day métti si ñoom ñu ne kon ci diggante ay bés yi nga xamante ne defuñu manifestation bu mag nañu def dox mbokk maanaam dañuy tasaaroo ci biir dëkk bi par ñaar ñaar yore ay flyers dem ci jaaykatu caaf bi jaaykatu fegu jaay bi dem ci borom boutique bi dugg ci car rapide bi joxe ko pour wax askan wi ne leen kaay leen ñu àndandoo xeexandoo lii la loolu da lañ doon def nit ki samedi bi passé ñu fekk ñu rond point Sam jàpp ñu ne ñu am leen droit def ko moment bi ñu koy bi ñu koy aaye waa APR ñoom ña nga doon joxe. loolu lu ci yoon wax. ñu ne dañ bëggoon def euh, rassemblement bu ñu bu ñu déclaré wul. Mm. ak it euh, def nañ lu ñuy woowee. Euh, attroupement yooyu daal lañu lañu ci bëggoon a tuumaal te lenn ci loolu amu ci ndax mm. image yaa ngi koy wane ñaar ñaar la woon ñaar ñaar mënu nekk attroupement mm. xanaa kay dama defe ne léegi dañ ne man nag man amatuma droit dox ci mbeddu Sénégal yi wala boog amatuma droit toog ci car rapide Sénégal yi waaw mm. man euh, juste ci ci ci ci interpellation bi mm-hmm. ak euh, ni ngeen fa nekk woon sabab ban moo taxoon ñu téye leen ak bi ñu leen téye lan lañ leen wax ne moo tax ñu mm-hmm. téye leen foofu ak bi ñu leen di bàyyi lu ñu leen wax. d' abord bi li tax mu gën a grave foofu moo taxaw fa tuuti parce que dañu seetlu ne depuis un bon moment dafa am une milice du pouvoir buy jàpp nit ñi parce que. policier milice nga wax de waxoo police milice du policier. Hmm. parce que policier day sol tenue wala bu ñëwee si yow mu ne la man la agent nangam dama la bëgg a jàpp mais ay nit ñoo xamante ne doxee nit ginnaaw poñee ko ginnaaw saaga ko ndey xoj ko pamte pamtee ko dóor ko. te bu ngeen yeggee biir commissariat mu seey dootoo ko gisaat nga fekk fa nag les vrais policiers ñoom ñu traité la mais vraiment différemment traité la ak discipline traité la ak sérieux mais ak professionnalisme loolu tamit war nañu mais loolu police am. waaw moom laa la wax man moo tax ma ne c'est une milice qui a été créée parce que la police police responsable. Mm. du police su c'est la police des populations. il faut que police reste la police des populations. Mm. si maintenant l'État di leen dóor di leen saaga di leen xoqatal ñun porté nañ plainte incha allah dinañ jébal suñu plainte. est-ce que am si am nañ ay éléments y a les y a les vidéos y a les traces ci nit ñi mais Cheikhou dafa dugg ci biir oto bi ñu dóor lacrymogène ci biir oto bi moom kese di ko fokk ci pour génne ko gis ngeen image bi mu ngi ci net bi mu daanu presque xëm la doon def man j'ai été brutalisé image yaa ngi koy wane et ce ne sont pas des policiers ñoo koy def c'est des gens en civil. parce que mënu ma leen woowee policier ndax takkuñu brassard bi wane ne policier lañ yore wuñu carte wane ko ne policier lañ donc c' est une milice qui a été créée pour ñun exprès par gouvernement bi fi nekk pour mater les sénégalais te loolu dañ ko ñaaw bu ñu jógee ci loolu bi ñu yeggee ci biir commissariat bi effectivement les vrais policiers yi traité nañu ak respect. ñu leen wax bi ngeen yeggee. bon dañu indil euh, notification comme quoi que war nañ gis avocat ñu ne leen ok duñu wax te avocat. garde à vue ah. waaw garde à vue avocat ñu waxtaan li waxtaan mu conseil ñu la ñuy conseil ñu ñu ne ñu kaa leen def PV ñu ne waxuñu on a rien à dire répondre ñu à aucune question signé wuñ benn PV donc loolu moom mooy suñu attitude. donc entendre ñu leen bon je veux dire tontuwu leen sur. tontu wuñu sur dara on a suivi le conseil ñu bu leen tontu à aucune parce que amu leen lu fi tontu bu yéen la neexee war leen fi tontu dara donc attitude boobu la ñu jël mais ci condition yi vraiment buggoon naa taxaw ci violon wu. police centrale. lan moo ci nekk. parce que biolongu police Sénégal police centrale y' plus de kaña que de policiers biir police centrale y' plus de kaña que de policiers. c' est violon mooy lan fi ñu leen di tëj. violon mooy gris bi ñu dugal nit ñi. c' est inhumain c' est dégradant c' est lu ñaaw la basang ñaari basang yu xotteeku lañ fay lal conditions yi dérisoire na ba pare il gaspille l'eau des Sénégalais ndax robinet bi du tëj H24 di xelli. H24 nga teg nga teg fa butéel bu feesee yow yaay demaat changer butéel butéel yëpp fees nga toog bàyyi noonu ndox bi di kulee ci suuf c'est inadmissible. loolu luñ ci jublu. liñ xaw ma luñ ci jublu mais li ma bëgg wax boo ko mooy ne dëkk boo ko buggee xayma da nga koy xool ci ay hôpitalam xool ko ci ay école am xool ko ci ay prison am si ngay xam ban société la am ban nguur la am on ne respecte sénégal les ndax ku ñu dugal ci kaso ba bañ lay àtte ne yaa def tu es présumé innocent donc respecté wuñu Sénégalais yi conditions yi fa nekk baaxul. salte na xasaw na kaña yi ñoo ëpp policiers yi loolu du yoon ba pare bu ñu la indee say téléphone ak say accessoire ci mbuusu glace lañ koy dugal mbuusu beñe takk ko làpp ak état bi li ñu sàcc lépp ci xaalis ñu sax dem ci benn yi fay fa ñu defal leen ay sachet sous sel nga xam ne boo indee say bagage di dugal ko ci bind ci police nationale sele ko mbuusu rajo yi mbuusu glace lañuy jënd pour dugal ci sa ay téléphone ak sa ay casque ak say caabi c'est hallucinant ce qui la police Sénégal ministère bi toppatawul la police la police n'est pas dotée de moyens la police ne peut pas faire son travail convenablement parce que amuñu benn moyen et loolu dañ ko ñaawlu malgré nag ñoom ñoo ñu jàpp mais ce combat là nous le porterons pour eux pour que police mën a am syndicat pour que policiers yi mën a réclamer seen ay droits parce que seen ay conditions dafa ñaaw. léegi booy xool xeex yi nga xamante ni li ko waral li li waral euh, ñu téye woon leen nii. Euh, boo delloo ci ginnaaw avant président Macky Sall di accéder au pouvoir ak léegi c'est-à-dire boo doon comparer lan moo lan li woon dafa wonniwul wala ndax am na lu changer ci ci aspect yu mel. bëri na lu changé parce que quand même quoi qu'on puisse dire à l'époque sous sous le régime de Wade les policiers étaient en tenue di nga xam ne ñii ay policiers lañ di nga leen mën a identifier mais cette fois-ci tu ne pas les dugg ci am na kenn ku ñu doon jaay ataaya bi ñu demee police quatrième lañ ko fekk benn femme <laughs> femme bu ñëw du ñu jaay ataaya. kon désormais <laughs> mais loolu tamit est-ce que du seen ay technique ay technique d'infiltration yoo xam ni wala technique d'enquête yu ñuy ñuy que je ne suis pas contre cela parce police quand même dafa war am ay renseignements mm. mais dafa am anam bu war a anam bi mooy nga respecté citoyen bi nga ñëw di jàpp mënoo ko bettee ginnaaw xoj ko wala nga poñe ko ginnaaw wala nga ñëw di ko saaga ay ndey mm-hmm. policier amul droit saaga ma ndey dañu respecté tenue moo léegi au delà de la police de l'attitude de la police mais l'attitude a wax mooy mm-hmm. adjudant yi ñu fekk ci biir commissariat yi ils nous ont traité avec discipline avec respect mais d'homme à homme quoi mm-hmm. quand il a fallu ñu ñu strict ils l'ont été quand il a fallu ñu nekk humain ay nit comme ñun ils l'ont été loolu mm. comprendre le fait que xeex bi ngeen doon xeex avant tey dafa mel ni même xeex yi ngeen xeexaat yow loolu nan koy comprendre mais Y'en a marre anniversaire et puis c'était le pire hasard il y a bu wax ne prétexte bi c'était l'anniversaire de Y'en a c'est manque de respect à Noo Lank Noo Lank mu décidé def activité bi c'est pas Y'en et ñun par hasard la ñu xool ne. mais beneen problème a ngi noonu yéen c' est vrai que dans les commentaires on on dit que a marre mooy ñoo lànk mooy aar li ñu bokk sotti ceeg def ci. bokk nañ ci ñetti yooyu noonu yëpp. oui c' est c' est vous bi ak euh, symbole nekk en avant noonu moo nekkuñu en avant. il faut que il faut que il xam bu baax. la preuve na ci gën a fës en tout bokk ci lenn fu mu taxaw ko wax. non la preuve Fadel Barro la invité woon ñëwul yow yaa ñëw wala li nga wax bu ñu leen waxul nay eh, fu malade. waaw parce que du loolu c'est xam nga il faut que ñun ñu comprendre benn affaire. Fadel Barro nekkul euh, amul benn fonction ci biir ñoo lànk. Hmm. amul benn fonction ka nga xamante ne mooy co coordinateur ñoo lànk ma nga woon ci kaso bi muy Aliou Sané comme mi ci yeneen i média donc on est obligé ñu tasaaroo ci yeneen médias parce que du fii rek la ñuy ñëw mm-hmm. yeneen médias yu ñuy dem donc dañu tasaaroo mm-hmm. et c'est le hasard moo def man ma ñëw fi les mêmes combats les combats d'hier est-ce que ce sont les mêmes il faut que nit ñi comprendre que ne ñun mm-hmm. Y'en a marre bokk nañ ñoo lànk bokk nañ aussi aar lu ñu bokk aar lu ñu bokk organisation la buy xeex mbirum ressource naturelle ñoo lànk organisation la plateforme la buy xeex les problèmes ponctuels comme électricité bi aujourd'hui wala comme suba ndox mi wala comme suba leneen ak leneen ak leneen loolu moom mooy la différence entre aar lu ñu bokk ak ñoo lànk pour ne pas dévoyer wala di indi saturation ci bopp nit ñi ci benn organisation di xeexandoo lépp. Mm. ñu tasaare ko. Mm. et que ñoo lànk moo gën a inclusif parce que am na syndicalistes yi ñëw nañ professeurs yi ñëw nañ boulanger yi ñëw nañ ñeneen ak ñëw ñëw nañ te bokkuñu ci biir aar la ñu bokk loolu mooy la différence entre les deux plateformes. mais dernièrement gis nañ coow goo xam ne tamit judd na seen biir on pourrait dire wala en tout cas brouillé na brouillé na seen image. mais non quand on euh, quand on les voit avec Abdoulaye Abdoulaye nga xam ni Y'en a marre moo taxoon mu judd. Mhm. Fadel euh, dem ba ne Abdoulaye Wade kenn gënu ko fii. non non je ne suis pas d' accord génneel ma image bu Farel wax ne. non dafa dafa demoon wuti ñaar oui ah voilà on comprend. non non non non je peux pas comprendre ce que tu veux dire. non tu ne peux pas je ne peux pas comprendre ce que tu veux dire parce que Farel waxul loolu. donc attribuer non li mu bëgg a wax mooy li mu autrement dit est ce que Fadel. non non non ki nga xamante ni dañ ko reproché woon. non exactement presque tous les péchés d' Israël. attendons attendons il faut que ñu wax li propos yi Fadel wax après mm. Mm. yow sa interprétation mun na nekk loolu mm. mais Fadel waxut loolu mais le seul fet Fadel dem foofu noonu c'était une décision de Ñoolank mm-hmm. moo choisir un comité pour aller rencontrer képp kuy sénégalais ku nekk fii nekk une force vive du rek Abdoulaye Wade mm-hmm. dem nañ ci ñeneen. oui Khalifa Sall. Mm-hmm. dem nañ ci Sonko dem nañ ci boulanger yi dem nañ ci ñeneen ak ñeneen. mu bokk ci comité ba ñu choisir ku ñu dem defi loolee. Fadel moomut boppam donte. moom un Sénégalais la mais boo xasee bu bokk ci plateforme da ngay soumettre ci décision plateforme bi et puis il faut ñu comprendre benn affaire mm-hmm. Ablaye Wade quoi qu'on puisse dire nga ngàññi ko nga bañ ko wax il fait partie de la vie politique de ce pays loolu kenn mënu ko ko dindil mi ngi fi depuis après les indépendances ba tey te mu ngi continuer di exister mm-hmm. loolu nag mënuñ ko ko bañal et le PDS est représentatif dans ce pays am na ñoo xam ne tey ci Sénégal pour ne pas citer xaaruñu lu dul niw di ni nit wax leen dara ñu leen defi ko donte gis nañ ko ressentir nañ ko am na ñoo xam ne Abdoulaye Wade kese moo leen mën a wax dem leen ngeen xeex ñu xeex donte yëg nañ facture bi cher na mais ce Sénégal là ñun on peut pas le négliger il faut qu'on Fadel Barro bu bëggoon a gis Abdoulaye Wade ba mu koy gis kon 2011 lay doon ak 2012 bu mu nekkee président il faut que les Sénégalais arrêtent quand aujourd'hui que Abdoulaye Wade nekk ci opposition bi quel est l'intérêt de Farid Barro d'aller voir Abdoulaye Wade aujourd'hui pour bu affaire boppam moo ko tax a jóg franchement 2011 la ko doon defal 2012 pour les besoins du combat il faut que les gens comprennent que les politiques ils ont fait un aveu aujourd'hui c'est les mouvements